te loolu c'est important. d'accord Aïcha ñu dem xool lan moo gën a fës si yéen kaay dellu soit sur le plateau mën a yaatal waxtaan bi ak suñu invité du jour ban journal la ñu commencé. Aïcha Mamouro tey Mamouro. <laughs> Mamouro. ban journal lañu tàmbalee tey xool ñoom aussi lan lañu ñu gën a fësal. Jàmmal Info la seen i yéen kaay. Jàmmal ñu commencé par. ah. journalu kër gi. l'info <laughs> kii caporal mooy assistant Samb léegi moo tax. lu wax moom. <laughs> journal bi ne. l'info nee na bi yaa ngi l'info bi ngi noonu Samb. yaa ngi lakk ay bus de. nee na les. les assujettis. waaw défient la loi et l'OFNAC. Mhm. loolu koy déjà erreur la. Mhm. défi ndooy défier loi yow loi bi daf la tënk. ku defee foofu. ah nee na les assujettis. les assujettis. lu sa sa sa si ay procureur ay. Ah, ay magistrat ay ah. xam nga léegi ñoom ñooy défier loi. waaw. dafa mel ni rek yow ngay génn fii amoo amo kii amoo permis mhm. euh, kii nu mu tudd nga gis policier bi policier bi naan la nii nga ne ko amu permis mais damay jàll damay dawal. ah loolu du yoon lu amoo ko mayee. Mhm. kon ja amul défier en tout cas journal bi. Mhm. génn na fi loo xamante ne jar na réflexion. ay mbir ay mbir cibir. ci biir. ay mbir ci biir ay mbir ci biir. ko bëgg seeru. waaw ku ko bëgg seeru. acca 100 francs nga am information yu am solo ci biir Mamour après l'info l'observateur bi yaa ngi nee na. journal bi ne. Mhm. waaw. <laughs> la cité Kirimi. Nogel Nogel. waaw. de Colobane. rasé rasé. décrépissement la de. parc à. Mazout Mazout. décrépissement la de. ay toj nañ ko de. lakk ay bus lakk bus. cité ba nekk Wakam. Mhm. ci boobu noonu. din nañ ko. cité bële. IMB dindi nañ ko. parc bii. waaw dindi nañ ko waaw. ma ngay Nouakchott. ariatal déroule le tapis rouge à Diomaye Faye. Mm-hmm. Mm-hmm. yàgg na ah, al gazawi. le forum civil. am lu muy wax de Walf Fadjri xoolal Walf fu mu eh, génnee des comptes journée du dialogue national. Mm-hmm. Diomaye sur les pas de Macky. dialogue. reddition des comptes mhm. journée du dialogue national mhm. damal ci benen <laughs> ya. mom la ba légui dé lu wax jomay réclame à l'ofnac des rapports déjà publiés ah ah ah, ah rapport publié guñ hmm. merci c'est quotidien c'est quoi de dernière minute ah bukan présent bawon bukan quatre hommes hommes d'état Léopold Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ainsi de suite Dakar Akos oh le quotidien eh ouais ndank rek Bassirou Diomaye Ah. El Gazaoui mhm. pour l'intention l'intensification des liens dans les secteurs du gaz, mhm. du commerce, des pêches. waaw fa ñu jaar enquête mhm. ce qu'il faut savoir. ce qu'il faut savoir inspection générale d'État. OFNAC gaa ngay Chamba, am du mbóot yu ñu libération libération lu sur les traces d'un scandale financier. Maamu ndànk Maamu ndànk. Maamu. wala da ci loolu. Les Éconais, la notaire Astou Diagne, mhm. sévèrement condamnée. Eh. Eh. Poursuivi pour association de hein? malfaiteurs escroquerie. Les États-Unis réclament l'extradition du présumé auteur de l'incendie du bus de Yarak. kooku daa eh. <laughs> dem Europe ah. wala hier de Serigne Sayer Fall dans le New Jersey aux États-Unis. la défense refuse l'extradition aussi bien. <laughs> ah, Vox Populi lo wax bi yàgg. Le président nous réconcilie avec des obligations. Ay, Mamour eh. <laughs> Mamour démb dañu la woon tey la bokk. <laughs> la reddition des comptes. Mamour yow lay la reddition des comptes. waaw forum civil lay wax. mooy wax na. Mhm. waaw loolu lu baax la. maa ngi la dangereuse règle de la vengeance des vainqueurs sur les vainqueurs mhm. est en train de prendre forme. quoi wax qui est beaucoup ki kan la. my name is. Chavi a annulé la séance de ce jeudi. Barça ngay toj. Barça ngay <laughs> Barça on te donne une information sur Barça euh, Madrid capitale non mais instant on parle pas de on est. en Barça ah, mais. de. record munoo wax Barça te waxoo Real. mënut a nekk ah mënut a nekk de. waaw Coupe du ah. Sénégal 32e. ayca demi-finale ayca. Ah. <laughs> record yéen a kaay lu wax bi yaa ngi. journal bi ne. waaw ah. jaaraf réplique la ligue recadre. Hmm. jàmbaar relégué. maanaam Iliman Ndiaye et les Phocéens au bout de la nuit. macha allah lan la sama jour bi. ah démb ñoom ñoo gagné de. ñoo gagné ñoo qualifié de. la porte roman. waaw waaw. ah loolu mbir la lay football bu Sadio Mané. le bi pour Sadio. wala le onzième. dégg biyaag biyaag. dégg nga Sa Thiès. mu ne. nee na ma mission est d'avaler Eumeu Sène. ah Eumeu wax yooyu la bañ a dégg de. baax na merci. peuple. suñu làmb ji du du ñëw. suñu làmb ji envoyé naa la ko booy. stade yéen a face à un calendrier fantastique. Hmm. calendrier voilà. dantesque gigantesque. dantesque. ah. calendrier dantesque. calendrier dantesque. eh ko wuti ah. xaalis kay. Hmm. ku wax loolu. Ah. génération foot.

lan moo waral ziyaara général. yaa mooy sànni xeer rek di rafetlu macha allah invitation bi di si kontaan bu baax. Mm-hmm. encore une fois di jégaluwaat ci sunu retard. Mm-hmm. waaye comme Dakar bu vendredi moom day xaw a xat. Mm-hmm. ah ziyaara général nag dégg nañ ci mag ñi wala dégg nañ Serigne Abdou mu wax ne. Serigne Babacar Sy radiyallahu taala moom moo ko initié woon. en mu nekkoon jotaay boo xam ne dafa daan daje ak mag ñi. di leen jottali message bi nga xam te moom la ñuy wéyee ginnaaw bu ñu jógee gàmmu Tiwaawan fa tabarakallahu waa daayira daayiratul kiram doon ko ànd ak waa daayira Ahmadiya macha allah ñu koy organiser ba tey daanaka mbooleem lu organisation ñoom ñu ànd ko ak waa Koskas ci jiitalu euh, président euh, Mansoumane Samb bu Koskas ànd kook ñi jiite Ahmadiya ak ñi jiite euh, daayira kiram mu nekkoon jotaay boo xam ne aussi sëñ Babacar dafa daan jox mag ñi yóbbal yóbbal boo xam te ni mooy moom la ñuy demee dundee ba gàmmu ñëwaat wala ba ziyaar ñëwaat ñu mën a tegu ci teguwaay yi nga xam te ni moom la kër gi soxla mhm. macha allah tax dafa daan wax ne sunu diine sunu tarixa sunu métier ak sunu yoonu Tiwaawan sunu yoonu Tiwaawan boobu nag ziyaar général di ci dugg mhm. parce que dañuy wax ne taalibe warul gëj kër sëriñam mhm. te sëriñ Babacar Si mag ñi ñoo sàkk woon maanaam di am ak moom jotaay te xëy na jamono xatoon na mu daan leen may chaque at mu jàppal leen ziyaar général bu ñëwee mu génn taxaw ca ma saafoonteeg ñoom ziaranteeg ñoom pour ñi nga xam te ni daaw ñu am occasion gis ko ñu mën ko gis. Mhm. macha allah loolu moo waraloon ziar général. Mhm. alors tey euh, moom euh, mooy li ñuy wax rek ñu juddu ginnaaw mbay xamuñu mhm. mbay waaye mbay lañ gëm. ziara bi teewul mi ngi ko ne di am chaque année. tey jii euh, lan mooy lan mooy concept lan mooy xew exactement. bu ñu bu ziar général jotee. waaw bu ziar général jotee mooy ni ko sëñ sëñ Babacar si daan defee ànd ak ay rakam ku mel ni alaaji Mansour mhm. alaaji Habib ak Ma Abdou ñi dem ziar Seydi Hadji Malick mhm. saafonte ak muxaddam yi dajante ak ñoom waxtaan ak ñoom euh, beneen bi aussi mooy bokk na ci li xew ziar général tey ki ñu koy defal mooy Serigne Babacar si Mouhamadul Mansour mhm. parce que ku fi nekk xalifa rek yow la ñuy ànd daje di la ko defal te dégg naa euh, ma sëñ sëñ Abdallah mu wax ne ma Abdou Aziz Dabakh moo ko waxoon ne ko ziar bi na ngeen ko defee ci ci buntu kër sëñ Babacar macha allah ba tey ñu ngi koy defee ci salle bi nga xam te moom mooy salle des cérémonies bu bu bi. Mm-hmm. Euh, bokk na si yi fay am xalifa bi dina yebal ki nga xam te moom lay yebal moom moo ko sax daan teewee. Mm-hmm. moom mooy yebal ki ki muy yebal bu ñëwee joxe message bu kër Seydi Hadji Malick. Mm-hmm. ñu wax taalibe aussi nan la ñu war a nekkee en tant que ay nit ci seen société bi ñu bokk. waaye en tant que ay nit yu yéene am yéene dem ci yàlla. benn yoon lañuy jaar macha allah. jaar yàgg nañ. Mhm. Mhm. waaw ziar moom yaakaar naa bari na particula particularité yoo xam te ne da ci am mooy parce que nit ñi ku jógee Tivaouane boo boo fay demaat danga nga koy namm surtout rawatina loo xam te ni dafa nekk bis boo xam te ni dégg naa sëñ Abdallah mu wax mu ni moom yitte yi ko ajo yi ko gën a ñor jour ziar général la koy ñaan. Mhm. kon yaakaar naa loolu tuutiwul. parce que ku toll ni sëñ Abdou Aziz Alamine bis yëpp bisu ñaan la waaye nee na yitteem yi ko gën a ñor ziar général bu convoi bi dugg si la koy ñaan parce que ziar mag ñi bu ñu daan dem dañ daan def convoi boo xam te ni dañuy déparé fii Dakar jël ñu nekk ci banlieue bi def convoi boo xam te ni Dakar ba Tivaouane jël Thiès ñëpp ànd bu ñëwee ak seen ci buntu kër sëñ Babacar. waaw mhm. ah, macha allah noonu itam ren ñi nga xam te ni ñooy organisation bi ku mel ni euh, suñu doyen alxaaji euh, Pay Abdou Pay moom mooy jiitalu wàllu moo yor wàllu caravane bi macha di ko doxal. Ah, li ñu ci mën a xaar bari na parce que ku wax Sénégal wax fi mu toll ci wàllu contexte politique nga xam te ne am nañ pol euh, président bu bees loolu itam beneen day nekk beneen cachet particulier ci ziar bi incha allah. looleen euh, mooy côté organisation. Mhm. mais surtout wax léegi ne autorité bu bees la ñu am mooy président bu bees. Mhm. lan ngeen di xaar côté autorité waaw autorité yi moom macha allah li ñuy xaar si ñoom rek mooy ñoom li leen wax ci li leen wax ci en tant que ay citoyens yi nekk ci réew waaye li leen war ci kilifa yi nga xam te ne dañoo tey daje di yar ay njaboot ba njaboot yooyu sonaluñ autorité yi ci seen doxalin ci réew mi ah macha allah comme bu dee ñun suñu cadre bi nga xam te ni dañuy def taxawu gan yi comme ni nga doon wax léegi. Euh, association la boo xam te ni mu ngi tudd liggéeyal Mam Maodo. ñu créé ko depuis 2018 ci ndigalu sëñ Abdou Aziz Sy bu sëriñ Sidi Ahmed. Euh, ñun suñu taxawaay ci ziar dafay nekk. Euh, comme ma nga ziar dafa xaw wuute ak gàmm parce que bu dee gàmm yow booy ñëw wala man may ñëw damay ànd ak sama daayira wala moo dal sama kër famille mais bu dee ziar ziar ci jour bi ngay ñëw mooy dimanche la si dimanche bi ngay ñëw boo ñëwee dimanche bi doo am jotu dem ci kër kenn boo ñëwee dangay ñëw préféré dem toog ci salle pour mën a jàpp place léegi ñun en tant que ay membre association Liggéeyal Mame Mor dañuy def chaque at bu ziar bu ñëwee ñu dajale suñu biir ku nekk mille francs ku nekk téeméer ku nekk juróom ñu dajale ko ak mbokk yi nga xam te ni ñi di ay taalibe ñeneen sax bokkuñu sax si si ci kër gi mais nekk ay jullit wala ay jaamu yàlla yoo xam te ni xam nañ li ñuy def yiw la boo xam ni ñëpp mën nañ ci am yiw mm-hmm. ñoom ñu dóolu seen alal bu defee ñun dañuy daje togg ay ñam buñ demee di ko séddale ñi nga xam dañuy nekk ci jumaa ji ak ñi nga xam yàlla dafa def ñu nekk ay handicapé di nekk ci alentour jumaa ji te duñ mën a jóg di déplacé wu di dem di wuti li ñu soxla ñun dañ leen fekk fañ nekk dox leen loo xam te ni kuñ ko jox yaakaar naa doo soxla jëndiwaat lekk wala ngay soxla déplacé wu ñun loolu mooy sunu taxawaay ci ziar général te dañ koy defee noonu di ko def gàmmu Tiwaawan dañ koy def ziar général dañ koy def buleel si toolu Sëñ Abdou Lamine dañ koy def xadaratul juma bi am si stade Amadou bari ak euh, mbooleem xew-xew yi nga xam ne dafay xew ci xadara bi macha allah. mais mais mais mais ñu gis ne macha allah daaw maa ngi doon seetaan en direct li nga xam ne moom mooy ziar. Mhm. gars yi convois yu doon def mhm. affaire yooyu noonu. Mhm. tey. par exemple ku wax euh, mbirum convoi ak des fois tam ñi nga xamante ne ñoom ñooy yaa euh, par exemple nekk ci rebooru tali yeeg mm-hmm. marchand ambulant maanaam yenn table yeeg affaire est-ce que mm-hmm. tey par exemple préparé ngeen terrain ba tey genre mm-hmm. bu ñëwee maanaam du ngeen am benn jafe-jafe boo xamante ne bu ngeen amoon daaw ren ngeen ne kat lii moo ñu tey par exemple onze heures la ñu àgg euh, nañu fexe àgg onze heures pile des fois daan ne onze heures la ñu àgg nga àgg foofu ay midi et demi ak kii ngeen ko. waaw caravane moom comme nekkul loo xam te lu bees la. parce nekkul ren lañ koy doog a def chaque année dañ koy def depuis ziar bi commencé ba léegi. chaque at dafay am caravane. mais ñi nga xam te ñoom ñoo yor loolu ku mel ni sunu doyen Alaaji Alaaji Abdou Paye. Hmm. macha allah disposition yi mu war a jël yëpp pour dem bi mën a jaar yoon yëpp macha allah jël na ko ak mboolem kilifa ñi ko kilifay booleel muy liggéey ak ñoom macha allah. Hmm. mais ziar ren. Mm-hmm. est-ce que waaw d'habitude gàmmu Tiwaawan mooy faral di am thème. gàmmu ah, ah, Tiwaawan mais bu dee ziar moom kilifa gi mooy xool contexte bi jamono toll. Mm-hmm. bu ñëwee ki mu kooku ci contexte boobu lay lay njaboot gi. Mm-hmm. ku nekk ñi mën a jël message boobu yóbbu ko ba déwén bi ñu ñëwaat incha allah. du yéen nuuru la. <laughs> waaw baax na kon alors. di fàttali que ne euh, ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan euh, ah. si seen i ñu ngi seetaan aussi si suñu plateforme digitale moo xam Facebook wala YouTube. Mm. Euh, sur Facebook c' est GT Sénégal sur YouTube c' GTV Sénégal ngeen mën a participer si li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi suñu waa ji nag saar la de dem gis naa commentaire da yow bëri maa ngi nga ma ci sànni xel bi ñu ef da bëgg lu yomb loolu bu loolu duñ ko ah, waxee fii. <laughs> voilà loolu méttiwul. <laughs> non ah. <laughs> euh, tey jii aussi nga jiite association bi nga xamante ne moom mooy euh, liggéeyal Maam Maodo. Mhm. tey soo waxoon présenté association boobu nga xamante ne. Mhm. Euh, yow yaay yow yaay président bi. loolu mhm. loolu si mën a wax. waaw association liggéeyal Maam Maodo comme man ko cof sax si si commencement bi. mbooloo la boo xam te ni mu ngi judd 2018. ñun sunu yitte ak sunu taxawaay ci Tivaouane bokk na ci événement yi nga xam te ne dafay am ñu mën di dajalee sunu ay ñaar dërëm ñaar ak ay juróom di ko mën di participer ci xadara bi ñu bokk. Mhm. parce que dama déggoon sëñ Abdou Aziz Alamine wax mu ni euh, mu ni kër gi moo soxla ku nekk loo mën nga def ko. Mhm. ñun nag ñu jàpp ni xëy na li mën mooy dajale ay ñaar ñaar dërëm ak ay juróom juróom. Mhm. xool ban taxawaay la mën a dem ci xadara bi ñu def ko. Euh, ci loolu association bi ñu koy créé euh, dañu waxoon sax ne ci ay ndox la ñuy yem joxe ay ndox. waaye macha allah tey dépassé na ay ndox mhm. parce que tey nit dina bokk si ñun am nattu yu ko dal mhm. wala am taxawaay yu yu mu laaj ñun suñu biir ku nekk mooy joxe ñaar dërëm kii juróom kii bañ ñu réaliser kooku situation bi nga xam te nekk na ci bëgg mu génn ci mhm. fa tabaarakallaahu aussi tamit bokk na tey mu defar mu nekk benn famille boo xam te ni da ko dañ ko am suñu biir ku nekk boo xewlee ñun ngay njëkk a gis boobu muy lu neex muy lu naxari beneen aussi tey am na ñoo xam biñ ci bokk na am na ay jikko yu nekkoon ci ñoom yoo xam te ni jullit bëggul am ko waaye yàlla def na bi ñu àndee ak ñun si nga si man mais association bi parce que booy nekk ak ay nit bu julli jotee nga gis leen ñu dem julli bu weer de jotee nga gis leen ñu dem weer de yow mi si nekk te bokkoo yow mi si nekk te miinoo ko dangay dem ba dangay am yéene mel comme ñooñu waaw ah, tey mën nañ ni am na ñu si bokk ñoo xam te ni ñu ci bokk daawuñu sax julli mais yàlla boole leen ci ba alhamdulilah jël nañ sax tey wirde te du du benn nit mais ay ay exemple yu baree baree lañ ci am. Mm-hmm. te loolu nag li koy waral mooy comme ci biir groupe bi dafa am ay jàngale. Mm-hmm. jàngale yoo xam te ni dañuy defaa ah, ñu ni waa nit nii lay laabee wala nit nii lay setee wala boog nit nii ngay defee sa wirde ak yooyu. Mm-hmm. léegi yooyu day dem ba day tax nit ñi nga xam te ñoo ci nekk dañuy xemme mbooloo bi pour bokk ci. ah ñun nag suñu yéenee mooy tey Tivaouane bëgg nañ lépp loo xam te dafay baax Tivaouane suñu loxo dugg ci. loolu mooy suñu yéene beneen bi aussi tamit ci biir association bi ku nekk maanaam ku nekk am na domaine boo xam te ni moom ci loolu ngay yëngu ñun itam bokk na ci suñu jàppalante suñu biir mooy fexe ba domaine bi ngay yëngu ku nekk bu soxlaa loolu yow yow mi ci bokk la koy def loo mm-hmm. parce que tey ki bokk ci benn mbir di ci yëngu bu bu maanaam li muy liggéey bu doxee day gën a doxal mbooloo bi mu bokk ñun tey loolu itam bokk na surtout ñu taxawaay macha allah. d' accord ziara bi euh, yaa ngi wax caravane caravane fan lay dooree ak euh, ban heure lay door. waa caravane bi euh, mu ngi départ fii avenue kii mu ngi départ fii obélisque incha allah su mu juumul lay lay lay départ 7 mhm. heures lay départ incha allah mais bu jógee foofu day jaar ci banlieue bi mhm. jël ñi nga xam te ne ñoo nekk Pikine caaro yi ak zone. mbaaw bi jëlaal leen ànd ak ñoom bu ñu demee ba Thiès jël waa Thiès soog a dem Tivaouane. macha allah noonu lay demee boo leen nar a dugg banlieue bala ngeen faa génn. <laughs> non pourtant wax gars yi taxaw ci national bi rek. non pourtant nit ñi xam nga ñoom ñoom dañuy teel dañuy teel a génn xaar leen bu bu defee bu ñu jegee rek dañ leen di jël continuer. loo ku bëgg a dem rek la wala ñoom. ah dajale Sénégal ñu dañoo dañoo participer. non non caravane comme daare bu nekk comme tey boo dëkkee Thiaré. Thiaré daare dañuy daje ñoom seen biir am seen oto boo xam te ni boobu day coordonné ak oto yi nekk fii ñi nekk yëmbal dañuy jël seen oto oto boobu day coordonné ak oto yi nekk fii léegi bu defee ñee dañu naan alu yaa ngi fii ñëwal nga génn ñu daje jëlandoo ñëpp ñu dem maanaam lépp dañ koy coordonné parce que hmm. ku ko bëgg def du dem ku ko bëgg def day nekk liggéey boo xam te doo ko liggéey ci bis bi mais ay mois nga koy liggéey hmm. pour jour bi bu ñëwee nga mën am résultat bi Dakar lay jóge après jaar ñi jël Thiès ak ñi nekk ci yoon bi ñu jël leen bu ñu leen jëlee kon ne mais comme ni day am ñoo xamante ne peut-être dëkkuñu Dakar su ma su ma pour rejoindre un question Samb bi mhm. mais mën nañ jóge si yeneen gox yi mhm. euh, ñëw directement Tivaouane mais caravane officielle moom Dakar lay déparé waaw caravane officielle moom Dakar lay déparé mais ziar général léegi mën nañ sax comme gàmm mm-hmm. parce que bu njëkk nit ñi dañuy ñëw si jour bi mais léegi daanaka am ñoo xam dañuy ñëw deux jours deux jours avant bo mm-hmm. ñenn ñi dañuy ñëw si veille bi comme ñun bu dee ñun association bi mm-hmm. à chaque fois bu ñuy dem ziar si samedi bi la ñuy dem samedi 17 heures d'habitude la dem mais comme ni nga waxee ni fu ne la nit di jóge même diaspora bi nit dafay jóge sax ñëw si ziar bi parce que cëru sëñ Babacar Sy tamit bokk ci fa li fa yàlla def mooy boo fay ñëw mën nga mel ni Firawna mais mooy jibi da ngay mel ni Moussa

waaw caravane bi par par exemple. dañuy yëglu comme ça ngeen mën ñoom dañuy yëglu parce que caravane bi aussi tamit maanaam lu ñu organisé rek day mel ni day indi pëcc xoo. parce que Serigne Cheikh dafay wax ne. nee na dëgg bu ñu organisé sax fu ko dëgg fu lu lu neen bu ko bu ñu fekkee da ko mhm. parce que ñoom dañoo organisé ba képp koo xam te ne yow da ci bëgg a bokk da nga leen di woo à mhm. nga wax leen ne man kat damaa manam nan ngay ñëwé pour and ak ñom inshallah parce que ah, sinon aussi day day day jaxaso hmm hmm mo xalam te bokk na sama préoccupation sama benen préoccupation hmm ki dem ni hmm rek da nga jog ku melni man ma jog rek ma dem ziaré mhm. dem ziaré hmm lan moy sama différence ak ñi dem ci caravane lu sa différence ci caravane parce que ziar général mag ñi caravane bi mag ñi dañoo xam yiw bi nekk ak barke bi nekk ci caravane bi parce que keroog maa ngi dégg Modou Modou Mbow bu Malikia TV bi mu wax ne am na mag yoo xam bu ni buñ jugee ci caravane bi jàpp bi ñu jëlee Dakar moom la ñu indiwaat bi ñu ñëwee si Dakar. Mm. jàpp bi ñuy jëlee Dakar. jàpp li ñu fi jëlee ah, jàpp commencé fi nga commencé nga ne. moom Modou Mbow bu Malikia. dafa wax ne nee na am na ci mag yi magu taalibe ñoo xam ne bu ñuy dem ziar. comme bu ñu xëyee suba gi ñu jàpp. jàpp moom moom la ñuy jullee tisbaar takkusaan timis ba bu ñuy ñibbisi Tiwaawan moom la ñu indaale bu dee caravane bi ba pare caravane dafa am lu ci nekk mooy sëñ Abdou Aziz Alamine dafa wax ne moom bu amee soxla moo la koy sànq aajo yi mu am yëpp ci at mi bu caravane bi du dugg si lay profité ñaan ko loolu moo waral mag ñi doon dugg ci caravane bi donte nag képp ku ñëw di nga am yiw mais caravane dafa am yiw bu particulier bu ci nekk parce que mag ñi nga xam te ni dañoo dañoo jëflante ak sëñ Baaba ko ñoom caravane bi rek la ñuy dugg duñ na ay mag yoo xam te ni caravane lu mu yeex-yeex lu mu la ñuy dugg mais n'empêche aussi tamit parce que ñëpp mënuñu bokk ci caravane am ñoo xamanteni il faut ñu jitu pour organisation yi fay am parce que ziar général vay bi mooy gàmm soxna ummu bu borom wañu bu Serigne Babacar moo tax am na ñu bari aussi tamit dañuy fanaani Tiwaawan bu ñu xëyee mooy ziar général ci dimanche bi noonu la demee. alors tout cas muy loo xamante ne tey lu lu lu am solo la. Mhm. mais aussi tam euh, man. moto yi sànq moto waaw surtout surtout loolu itam. léegi moto yi. waaw ko convoi côté moto bi itam jël sama moto. topp ñoom ñooy si caravane bi. comme que ba jàddal caravane ah. fu mu warul jàdd rek amul problème. Ah, ah. waaw convoi moto yi yow wax nga lu am solo. parce que lu bëri ñoo seen moto la ñuy yor. yooyu sam caravane yi tam. mën sama oto. ah ñëw bokk ci caravane bi. voilà mën naa jël sama moto. waaw ñëw bokk ci caravane maanaam baax na. non non comme yow mu nga xam nga tey boo yore sa moto. Ah. moto bi day topp ci caravane bi. waaw ah. kooku amul problème parce que dafay topp day nekk ci day dugg ci biir caravane bi te ñoom ñëpp Tiwaawan lañ jëm. Ah. mais dafay wute ak ki que ñoom dañuy organiser caravane de telle sorte dañ koy dañ koy organiser ba ba ba du jaxasoo ba pare mm. comme comme oto la te tali yi lu ne la da ci am. Mm. ñoom dañuy organiser ba duñ bëgg kuy dugg ak génn te yoy yëpp ñom dañ koy réunion avant ñuy dem. parce que en termes de sécurité. en termes de sécurité loolu daf te aussi am na dañ sama genre. Mhm. dañuy dem par exemple Kédougou gis convoi. waaw dugg ci gis convoi dem normal. nga xam ne normal yow nga dugg ci convoi bi pour pour pour pour kii. man waxuma la de. Mhm. lala. ma ne. Mhm. waaw comme par exemple fii. Sacré Cœur gii. waaw. ma gis fii caravane. waaw man maa yor sama oto. waaw ma dem ma xaar. am nañ caravane bu ñu départ man tey ma départ ak ñoom. waaw mooy li ma wax sànq ne la caravane bu bu départ. Ah. dafa am dafa am ñu bari ñoo xam da leen di jël ci yoon bi. Ah. xam nga tey am na ñoo ñu nekk Dakar ñu nekk par exemple Thiaré wala wala wala feneen. waaw ah. ñooñu yor ñu oto yu mag ay oto yu ndaw lañ bokk. pourtant am na ñoo xam même mën nañoo bañ a bokk sax ci daayira wala dara mais dañuy xamante ak seen ay nit yoo xam dañuy bu ñuy dem ci caravane dañuy ànd ak ñoom dugg seen oto dugg ci biir caravane bi. parce que fu zone bu ñu dem dañuy taxaw policiers yi dugal oto yooyu ci caravane ba pare ñu soog pour avancer. loolu kon kay mën naa yóbbu sama oto wala sama moto. waaw incha allah xam naa yaa ngi yóbbaale. dugalaale ci lu mu la wax mooy. bokk ci daayira bokkaale ci daayira est-ce que dina mën a ñëw bokk ci convoi. bien sûr ci caravane sa oto ñaar place moo des. Euh, géwalam ah. day dem. ak man géwalam day dem de. baa du ñu dem mu fay nga dem taxawu gan yi alors avant ñuy jàll si euh, si mbay est-ce que am na information particulière boo xam bëgg nga ko wax par rapport surtout li nga xamante ne moom mooy concept euh, taxawu gan yi. waaw ah taxawu gan yi di di si ñaax ñëpp rek di si woowaat ñëpp itam macha allah. Mhm. xëy na loolu sax moo gën a tax ñu ñëw fii parce que mhm. ziar bu dee ziar xamuñu si lu bari nag. Mhm. Ah, mais mais euh, liñ ci faraatu tuuti rek lañ fi lañ fi lii moo tax bu baaxee rek ñu xam ne suñu kilifa la. safaanoo itam ñu xam ne si ñun la ah, di wax rek mbokk yi di leen woo ñëpp di leen woo ci ziar général bi nga xam te ni kër Babacar Sy radiyallahu taala anhu moo ko woote woon bi mu fi jógee Mame Abdou Dabakh di ko def bi mu fi jógee Serigne Mansour di ko def Serigne Cheikh ba tey Serigne Babacar Sy Mouhamadou Mansour Serigne Abdou Alamine tamit def na ko macha allah eh, di nekk mu nekk loo xam nag bokk na ci événement yi nga xam te ni Tivaouane ko gën a fonk parce que ku xam Tivaouane xam Serigne ak ni mu toll parce que Serigne Abdou dégg naa mu ni Serigne Babacar moo daan ànd ak ay rakam di ziar Seydi Hadji Malick mu ni tey nag nekkul Seydi Hadj Malick kese la ñuy ziar mais dañuy am sensu ziar Seydi Hadj Malick am sensu ziar Serigne Babacar Sy ak ay rakam am sensu ziar seen ay njaboot ku mel ni Serigne Mansour Serigne Cheikh Serigne Abdou ak ki nga xam te ne mooy Serigne Pape Malick bu bu ko defee ñun ñëpp bu ñu ànd paree bu demee ziar ñoom ba pare ñëw nag toog déglu message bi nga xam te moom la ñuy kilifa yi di jox. Mm-hmm. ñu xam fan la ñuy jaar ba raw ci jamono xam fan la ñuy jaar ba xam taxawaay yi nga xam te moo ñu wax ci su en tant que ay taalibe mhm. waaye taxawaay yi nga xam te moo ñu wax suñu société mhm. ndax ku sëñ Babacar Si dafa wax ne suñu diine suñu suñu métier ak suñu yoonu Tiwaawan waaw fa tabaarakallaahu eh, di woowaat mbokk yëpp rek di leen bàyyi loo xol taxawu parce que nekk na loo xam te aussi tey Tiwaawan boo waxee taxawu gan ñëpp xam ne association liggéeyal Maam Mor moo koy def mhm. parce que nekkul def wala daaw mais depuis 2018 ba léegi ñu ngi koy def te itam mu nekk loo xam ni kilifa yëpp macha allah dañ ko rafetlu dafa am benn année ñu dem euh, ci sëñ Moustapha Alamine mhm. yóbbu fa ay ndox mu ne ah, li ngeen fi indi dem macha allah soxla nañ ko parce que fan yii yëpp fii amul ndox mu ni yéen dangeen ngeen am ñaari fay boobu gàmmu loon mu da ngeen am fayu ku ñëw gàmm ci ndigalu Seydi Hadji Malick benn après da ngeen amaat beneen fay mooy am fayu ku ñëw gàmm ci ndigalu Seydi Hadji Malick mais kuy taxaw gan yi nga xam te ñoo fi ñëw ci ndigalu Seydi Hadji Malick mhm. ah loolu nag macha allah yiw boobu lañ ñun moom la ñu woote te itam moom la ñuy woo ñëpp

muy te man dama ci kontaan. Mm-hmm. tey man taalibe Baay laa damay mm-hmm. sol accoutrement Baay Faal. Mm-hmm. tey ma gis ñu bëri ñoo xamante ne tey am nañ affinité. muy diggante yéen ak muriti des fois euh, suñu xale boobu la bu mooy. xale macha allah ñu ngi koy ñu ñu ngi koy xaar fi daal ci émission bi. incha allah maanaam daal génne loo xamante ne da nga gis muriti sax naan leen àll ñu ko. ba màggal gi passé ak affaire affinité entre tijaan murit ak affaire yooyu noonu tey. Ah, waaw loolu loolu bees. parce que ku ne xam na ne Serigne Hadj Malick ak maam Serigne Touba ak ñi fi bokkal jamono bi ñu fi nekkee ku nekk yaa ngi doon bàyyante xel ak sa morom. Mhm. ku nekk def nga témoignage ci sa morom wax maanaam mbaax mbaax yi nga yi nekk sa morom ba pare ku nekk wax ne ku mel ne Cheikh Abdou Khadre Diala wax na ne tarixa yi. Mhm. Euh, kulli tarixati waaw Thierno maam maam Cheikh Thierno Sall wax na ne tarixa yi ku nekk ci yoonu yàlla la jëm. Mhm. Serigne Hadj Malick tey li mu nekk. ci yoonu yàlla jëm Serigne Touba bàyyi laa keneen ak keneen. aussi ñun ñi nga xam te ay ndaw lañ ñun bi ñu ñëwee loolu lañ fekk. macha allah ku mel ni ñun sëñ Abdou Aziz Al lañ gën a miin mais gis nañ ba tàyyi mu sol dàllam dañ sëñ Sidi Mokhtar wax na sëñ Sidi Mokhtar moo wax na yow sama rek nga waaye sama xarit nga gis nañ ko këru diine yëpp fu ko neex dugg ba pare wax na ne man sa Abdou Aziz yónni na ma ay mission ba tàyyi mu ñëw rendre ko compte tey wax na ci sa sëriñ Baye Niass mu ni Baye boo ko ne ci bi mu bi mu bi mu bi mu tëddee feebar bi ko yóbbu nee na fekk naa ko fekk dama da doon dem gàmmu kanen ma mhm. Abdou Hamid Kane maamam yi nga xam moo jur so ma Abdou Hamid Kane moo jur Soxna Asu Kane Soxna Asu Kane jur sëñ Abdou ak sëriñ Cheikh mhm. mu ni bàyyi bàyyi wax ne bu Serigne Abdou bu Serigne Cheikh ñëwee nañ ko wool Serigne Cheikh na boobu jafe na gis Serigne Abdou moo dem bi Serigne Abdou demee nijaayam ne ko sa sa sa sa wayjur Cheikh de moo la soxloon woon. nee na bi mu xëyee ma dem maa ngi fekk mu sàngoo benn mbàjj bu rafet nee bi mu ñëwee ma toog ak moom nee na ci ci bis boobu wax na ma li nar a xew ci senegal yëpp te loolu agseegul mun ma lii yëpp dina xew ba pare mu ni ko yaag Cheikh Tidiane na ngeen taxaw ndax doonoo leen ñuy daw. Mm-hmm. nee na aussi tamit bu daan ñëw bu daan ñëw ba dina bàyyi euh, sëñ bàyyi dafay booleeg sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Niass ne ko na leen dalal sëñ Abdou nee na loolu junj la te gis nañ bataille journée cheikh yi di am muy grande mosquée yi nga xam te ni sëñ Abdou lañ tuddee kenn ana benn année bi ñu ko tuddee Cheikh xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane Niass Cheikh bii la yebal Cheikh ñëw def foofu témoignage bu rafet jour boobu moo ñu jiite timis ñi fa nekkoon ñëpp itam euh, comme sëñ Abdou dafa tamit mu ni mu ni ñun ñi nga xam te ni ñooy ngànkuri diine yi rafetal seex mm. jàmm mm. beneen bi itam mm. mooy Baye Mbaye bi ngay wax <laughs> macha allah Baye Mbaye ah, kooku moom bëgg naa mu ñëw fi ma wax <laughs> incha allah Baye Mbaye moom macha allah moom surtout Baye Mbaye doon mbay la euh, surtout Baye Mbaye doon mbay la ku xam Baye Mbaye doon xam ne woy mooy mooy cëram euh, ku xam dudu kenn xam ne woy mooy cëram ak ñi mu doon macha allah di wax yàlla na yàlla fal ko cat itam yàlla na yàlla sàmm suñu mbokk murid tamit waaw waaw suñu suñu mbokk itam macha allah xam nañ ni tey man kenn mënta fexe ba ma nekk murid mhm. murid bi kenn mënta fexe ba mu nekk tijaan mhm. mais lenn kese moo moo fi am mooy ku nekk respecté sa morom kilifaam bu ko defee ñëpp mën a ànd ànd bu rafet loolu moom solo te gis nañ macha allah concept boobu ñëpp ñëpp comprendre nañ ko ku nekk bu màggal jotee da ngay gis kii tooñ murid bi tijaan bi tooñ laayeen bi kii tooñ xaadim après ñu ànd parce que ku nekk ne bu kilifa jotee ku ne am nga sa kilifa ah. lenn rek moo ñu dese mooy ànd rafetal bokk réew mi bokk jàmm bokk suñuy kilifa macha allah mm. moo am na fi moom mm. maman fa allah kon kon euh, Samb ginnaaw sa oto des na place léegi mais suñu yeggee ah, man man man man ci association liggéeyal maam moo laay dem toog incha allah dinañ leen <laughs> xam nga mën a trahir ma fi ah. man ci association ànd taxaw gan ñi laaj jox <laughs> waaw allah maa leen dalal incha allah <laughs> voilà jëm. mais comme Samb comme Samb nangu moo yóbbaale moom xam naa bu ñëwee rek. yow non non bañ ma sunu programme bokkul. Ah. yow da a teel a. waajal waaw waaw ah, kon baax na ah, incha allah. te ñun dañuy bokk ci caravane. waaw waaw baax na gi fa la nekk. waaw ñun daal ñu ngi ci caravane. waaw incha allah bi daal. waaw ñun daal ñu ngi ci caravane. incha allah incha bi. Euh, le vingt avril mooy dimanche incha allah. mooy nekk ziar général incha allah dimanche. 21 ah, la nga ñëw ah, la ko laaj. gannaaw suba rek <laughs> waaw allah. la incha allah. mu nekk bis boo xam te ne mag ñi macha allah fonkoon nañ ko trop moom ziar général. Mhm. parce que xam nañ lim leen di jariñ parce que nee nañ sëñ Babacar ci li am bisu ziar la koy séddale. Mhm. macha alors yéen a ngi wax tout à l'heure euh, nekkin bu rafet bi nga xamante ne seetlu nañ ko si diggante tarixa yi nga xamante ne mm-hmm. euh, ñu ngi biir Sénégal mm-hmm. te loolu sax wax jooju daf may permettre ma ma ma ma introduire ki nga xam ne mooy mbay ndax euh, c'est que dafa dégg daaj nag mm-hmm. moo tey li mu indi da ko da ko da ko yóbbu si si si côté waa kay xam nga nag daaj dégg daaj hee mbay tey fu ñu jëm ak lu ñuy waxtaanee non tey fi ñu jëm indi nañu thème carrément ci rubrique cosaan waaye dañuy rebondir avant ñu ñëw foofu. Mhm. ci sawaay entre mhm. li ko caporal laaj. Mhm. ci entre tarixa yi comme Murid Tijaan affinité bi ñu am ak relation bi nga xam moom la ñu am. question dañoo